moment bi sama xel day dem ci moom nit ku amoon courage ku bari woon xam-xam bokk na ci ñi ñi ma ñi ma ñi ma présenté président Macky Sall ci ay moment yu jafe nag parce que boobu yàlla dogal nag ku ne xam na famille religieuse yi ni mu mel booy jël yenn position politique du yomb surtout sa waajur nekkoon ab xalifa ca jamono boobu mu présenté ma président ma nekkoon àndulaay fës lool ci ñu ko doon jàppale ci département bi mu daan jëflanteek sama waajur tamit ñu seq lu nekk waaye ba ma demee ba xam ni lam ma doon wax man ma ko daan dégg muy rupture bon gouvernance gisatuma ko ci laa am courage wan ko ginnaaw wan ko ginnaaw ci ci politique waaye mosuma ko def ennemi. xam nga da ne. Hmm. bu fekkee ne da nga bëgg. Hmm. ñu dem directement. sur la question du dialogue ñu dem foofu hmm. mais am na point yoo xam ne boo ko évoqué aussi hmm. il faut que ma revenir si alors Macky Sall hmm. da nga ko bàyyi parce que bokkatu leen woon valeur politique wala parce que xaar nga ba sonn mu récompenser sa sa sa sa sa sa engagement récompenser wu ko nga menacé dem Pastef ba far euh, toog fa déedéet parce que man Macky Sall ñi ko wër ñëpp samay mbokk lañ boo xamee Pape Abdou Cissé bi nekkoon ministère des affaires religieuses yaakaar naa man la gën a bokkal ci réew mi parce que moo nekkoon présidence nga xam ni ku jege woon Macky Sall la nekk sama ndijaay kon man aw ma woon problème mu jot ci Macky Sall ndax man ànduma nit pour poste man sama defuma politique pour ay kañota àdduna yi li taxoon ma ànd ak Macky Sall boobu Ablaye Wade da nga koy jaay doole. bëgg koo néewal doole ñun ñu nekk ay jeunes nekk ñu conscient ñu am courage am fit jóg taxaw jaamaarloog lay Wade te ci moment bu difficile parce que jamono boobu li ci doyoon waar sam papa bi xalifa bi Ablaye Wade moo doon xaritam mais ci jamono boobu dama am courage taxaw malgré sama waajur la sama kilifa la ànd ak Macky Sall kon man Macky Sall mosuma ànd ak moom ngir ay affaire poste parce que man politique poste bàyyiwuma ci ay conviction ak riw mi heure bu tollee ci ñu war koo taxaw moo bëgg a bokk ci ñi koy taxaw. léegi on en revient